asalaamaaleykum euh, wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, man la Ousmane Dramé bu la réveiller conscience comme ni ñu ko fal defee rek à chaque fois quand un événement se présente une actualité euh, dañuy toog waxtaane ko diisoo ci ba déggoo ci ay point yoo xam ne daañu ko mën a alphabétiser ba jàll ci askan wi ci ci culture pédagogique boo xam ne fu waay nekk fu ne da mën a natt lii dëgg wala nga natt ci sa bopp wala nga xam xalaat yoo xam ne boo ko ci doolee jàkkaarloog dëgg ngeen bàlleen ma bàlleen ma ma fanaanoo am sot quoi ah, ñu bëgg a commencer tuuti rek ci wax ci processus de trucage bi nga xam ne am na maanaam complot bi nga xam ne moo ne ci biir élection yi euh, ñun ñëpp ñor ko bokk xam te bu kenn yëguma ko dañ koy def rek comme ni ko yoon waxee magum waxoon naa ko moo gën a wér magum foogoon naa ko dañoo bëgg a des rek ci combine bi nga xam ne dañ ko négligé tam am combine bi nga xam ne ci la lépp sukkandiku pour ñu ñàkk Sénégal Covid bi nga xam ne France dafa nekk ci biir ay politiciens de l'opposition nekk ci biir le pouvoir orchestré ko ba pare am yeneen kilifa yoo xam ne ay kilifay aada wala yooyu diine ñu ne ci biir mu une affaire boo xam ne affaire la boo xam ne ñun ñëpp nun la war a concerné mu seet nuñ ciy def ak nuñ ci yëngoo ba arrêté li nga xam ne moo nar a am une procédure procédure boo xam ne du doon njariñal xale yi du doon njariñal mag ñi du doon njariñal jigéen ñi du doon njariñal Sénégal yi nga xam ne ci yoon wi dikk c'est-à-dire les futures générations complot bi dëgg la complot bi am na ñu gën a tàmbalee ci Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé Lo dañ ko chargé fraude fraude bi ak intimidation yi loolu ci loxoom la ko benn Bokk Yaakaar teg di ko ci seenu mu liggéey ci Moustapha Cissé Lo est très bien équipé avion sax dana ko jël dem pour lan yokk vitesse ak rapidité ak gaaw ci li def dana intimider xàcc yuuxu te ñemewul a dóor amutu fit du xeex laa muy wéy rëy mu dëkk Louga moo xam ko kër mbaari la dëkk daan jaay ngub sun koñ ñun marbat lañ dëkk marbat daan jaay ngub am wereyaan am celaw lit akum yimb mu rafet la daan am di ko jaay ma xam ko ab doxat la la yu rëy ab doxat la Moustapha Cissé Lo maanaam double carte yi double carte responsabilité mu Cissé Lo moo ko géré Moustapha Cissé Lo moo géré intimidation yi c'est-à-dire nu ñuy naawale ak nu ñuy nappe ak nu ñuy xooxante ndax defe nañ ne comme Macky ragal la Macky def na ku ragal rek néew nga doole moo tax Cissé Lo arrogance lay waxee ak ku réewande waaye amutu fit beneen point bi ci des ñu def ci attention Cissé Lo équipé nañ ko jox nañ ko xaalis jigéen ñi nga xam ne ñoo ne ci centre yi liggéey ak jigéen ñi nga xam ne ñun ci tefes gi liggéey ak yi xam ne ñoo ne ci àll bi Cissé Lo moo leen toppatoo àll bi aussi kaw gi charge bi moom moo ko géreel boppam loolu ngeen xam ko te dana indi kees yoo xam ne du kees yu légitime du kees yoo xam ne kees yu wote la mais kees yoo xam ne moo ko daajee këram gàddu ko war ko mën a dugal ci bagaas yi ñu def attention ci moom beneen bi ci des ñu digg ci ñaari transhumant kenn kii di Cheikh Tidiane Gadio doon un ami boo ñoo nekkandoo maa moom fii muy sama gaayen nu bëggante lool di daje ci lone nag ba bërki démb rek bi may problème bii avec les Américains ci ginnaawam laa taxaw dawuma da ba ci ca wax loo xam ne américain yi mën maa jël si ngir gëm gu ma ko gëmoon ak wóolu gu ko wóolu woon ndekay ab saay-saay la Cheikh Tidiane Gadio li tax ma gëmoon ko Cheikh Anta Diop moo tax surtout encore man ak moom ñuy les ay pan africaniste yoo xam ne dama ne suñu loxo dafa mas a ci pat bi ma gis ko mu ci xeex xeex bu am solo te ay référence am yépp ci docteur Cheikh Anta Diop la ko daan jële wala Nkrumah mu doon lu am solo di ko waat di jëlit li tax waat di jël ko yomboon na benn yoon la gis waat wax ak benn yoon waat na ko tuy sara moom ministre des affaires étrangères parce que am nga am nga éloquence xam nga Afrique te waxi Cheikh Anta Diop nga may wax dafa am solo ci man kon yow maa jël réew mi te naa la nommé euh, li may xam naa ko Cheikh tu n'es pas honnête et tu as trahi la diaspora noir Cheikh n'est pas honnête. Le panafricanisme, Cheikh Anta Diop, Dr Kouma, Gamal Abdel Nasser, Modibo Koita, Cheikh Thomas Sankara, sa nawle la sa morom Cheikh li ngeen woote bu doon dëgg ci yow dëgg ci yow kenn du xam Ousmane tu es inspiré dans cette culture panafricaniste. Tu es cultivé dans le langage de Cheikh Anta Diop demoon nga ba takk pat patu Cheikh Anta nga xam ne mënoo ubbi sa te kenn gëmul je te rappelle la conférence ba mu South Africa te Ablaye Wade doon présenté livre am wante naa rien parlé Cheikh yaa wax lépp ba ñëpp daanu un petit Macky Sall un Macky Sall un ignorant un gars zéro philosophie zéro Sciences Po un mécanicien jël sa bopp bi parce que dangaa tooñ américain yi ñoo laa def ci kaso bi mu génn xaalis joxe fay la ay beel ñu topp toolu nga génn nga tiit daal di wedd la nga gëmoon lépp cheikh cheikh yaay ñàkk bopp mais nag àdduna ngi sa kanam Cheikh Anta mënta juum déedéet yow yaay juum waaye utiliser nga ko ba agsi fii léegi ma nga wéq Cheikh Anta mu dem nga ànd ak Macky Sall mi ànd ak la France muy continuer a ruiner notre économie, continuer a ruiner et à traverser nos, popul nos populations. gaañu xoolal sa bopp xam nga fi ma ne boo ma bëggee gis xam nga ko boo ma bëggee woo bu leen neex jël sa téléphone woo ma doo nitu dara bi ci des moom ay sa taal sàll da na a yeb yi mais senegal yomb naa yeb xiif bu ci juddoo juddukaay boo jàngee ji sa bàyyi amu ko pour jox la ko sa ndey jaayut musóoram situation yi boo ne ma màgg ci sa bopp bi am ndox mënu cee dem mënoo xalaat itam ba kenn mën caa sukkandiku jariñu Aïssata Tall Sall séqoo ko ak i dof teel naa la xam trop ba ngay rampe ci PS ba nëgë dama lay suivre li tax nga mën a fen Aïssata Tall li nga mën a fen ngeen di ay soxna jigéen war warta fen yéen yéen ñuy meññi jigéen yéen a war a ëpp góor xiifoo ci diggante bi xiifoo yow yaa fi taxaw ne bëkk doom marabu ñoo ma topp sëriñ si te kuy fen rek sëriñ si ngay taxal kuy fen rek sëriñ si ngay taxal moom ab sëriñ yi daal ñoo ma topp mayuñu ma jàmm naan ma Macky Sall Macky Sall mayuñu ma jàmm ba tax daal xamatu moom na may def ma dem ca Macky sàll tey bi nga demee ci Macky sàll bi nga dikkee tuddoo benn sëriñ danga ne avant ma ci Macky Sall damaa ta damaa choisir dans la démocratie nga wax nee nga dem nga toog ak Idrissa Seck ak ay témoins vous avez discuté avec Idrissa Seck à un moment que donné le temps précis précis joxoo ko indi nga say toog ak Idi la nga wax ça vous concerne dara doyulu ci ba nga wax ak Idi nga jóge fa dem ci sa rakk Ousmane Sonko mu recevoir la ak i témoins ngeen toog wax te longueur de communication bi waxoo ko tàmbali waxoo ko nga bàyyi ñëw nag seet si Macky Sall ne nga Macky recevoir na quatre heures de temps quatre heures de temps quatre heures de temps man nga togg añ ak président moom jot quatre heures de temps nga toog ak président ànd ki nit ngeen discuter moom macha allah ngeen déggoo mu recevoir la avec les deux mains kontaan ci yow nga daal di nangu bokkut lu njëkk la nga waxoon ne ay sëriñ ñoo lay forcer pour nga ñëw waaye doo dem te li nga fi doon wax avant mi ngi ciy nun xam nañ ko jërut ñu di ko wax ay sata xamoon na ne danga dem maanaam juddin wi moo tuuti juddin wi moo tuuti ba tax na ñaare yax bi ak deret ji duñ mën a balancer mu toog toujours ñuy am mbetteel ci ñu ko fooge woon dama ne ay war baaxut ay wor baaxut beneen point bu am solo ba tey ci combine bi combine bi entre la France Macky Sall Idrissa Seck ba ci ma dikkee mais ma dikkee chiffon la chiffon moo la Macky Sall fompee dàllam chiffon la bokkut idée am kàttan Idriss Seck ne veut rien entendre rien entendre de Macky Sall waxoon naa leen temps yële bëkki démb Macky da koy woo di jël téléphone am bëgg toog ak Macky élection yi parrainage bi Macky da ko doon sànq da ko doon sànq ci parrainage bi mais c'est la France qui a forcé moo tax jël Idrissa Seck Idi gisu leen ko mu campagne di yàq xaalisam gëm na gëm goo xam ne France France lim ko promet dana ko def Macky Sall kay am problème mais la koy arrangé mooy mu nangu li France wax mu gane élection yi Idriss Seck nekk président de l'Assemblée nationale deux ans mu daw ne daa feebar Idi ñëw jël réew mi et les libéraux se retrouvent Idi a bien promis que le CFA daf koy téye te ñëpp xam ngeen ne CFA bi baaxut loolu lépp Idi gëmu ko te Idi Abdoulaye di mu ko jàngal j'ai connu trop Abdoulaye Wade Idi pour ses intérêts il peut créer une guerre psychologique émotionnelle ba dribble France def la ko neex parce que Idi mu wóor la ma ni Idi Idi est pour économie libérale une économie nationale une économie boo xam ne c'est nous qui décide parce que Idi c'est un décideur man naa mit mu yaakaar ne awe ko ci France moo gën a gaaw awe ko ci askan wi mu téye fi mu téye bañ a bàyyi lànk bañ a wax ak Macky ni ko nag loo ma bëgg a wax ko France wax ma ko yi di ngeen keroog mu ne man dootuma saaga Macky dootuma wax lu bon ci Macky ay saaga selu suuf sax mais quand un opposant doit être un opposant des révélations da koy def pour wàññi sa doole yi adversaire loolu bu kenn bu kenn yëguma ko la France est en train de cuisiner sous le lii des Sénégalais ñun ñi ñëpp mën nañoo yor réew mi les capacité mi ngi fi xam-xam baa ngi fi les relation mi ngi fi et nous connaissons le marché Sénégal mënta dem tant que yéen a ngi topp xaalisu France yi di ko utiliser te dooni ponkal mën a moom si fi bopp lànk Idriss Seck wóor na ko ne CFA bi baaxul te Idi bu nangulee français yi ba français teg ko ci kanam mu dawal ñaari at tudd CFA bi déegu bon na ko dee su tubaab baaxul usman Sonko il est le seul à la défense du trésor public créer une monnaie nationale ko ku ne mën na koo dégg quand tu n'as pas ta monnaie doo mën a yëkkati doo mën a manipuler doo mën a jongler maanaam gymnastique monétaire bu normal bu équilibré doo ko mën il faut nga moom sax xaalis am une banque centrale ak trésor public boo xam ne ñoo koy seq ministère bi pour ñuy accompagner les politiques gouvernementales pour définir le Sénégal ce n'est pas juste seulement une monnaie képp la ñuy am non nous allons travailler des devises devises yi am nañ ay teen ay teen yu koy jukki le zircon disons par exemple lu Sénégal soxla ci devise mën na ko dugal Sabodala lu Sénégal soxla ci devise mën na ko dugal le pétrole sénégalais nga xam ne Atlantique bi lépp moom la nga dem ak su dans le Njàmbur àll bu bépp ba ngay dugg Daaru Musi ba ba ngay àgg Touba ba ci biir Touba ak njaarim lépp pétrole la kon pour ñu maanaam ay devise pour affronter ce marché international, ce serait très fort possible. Il nous faudrait une bourse. Bien sûr, une bourse. Bourse, boo xam ne immigré yi seen xaalis dañ ko ciy jaarale pour di ko yokk ko dolli. une bourse boo xam ne immigré yi dañuy am temps organiser ay organisation ki broc ak lépp di dugg ci bourse bi. di jaayante ak a jënd bien sûr des banques fortes bien sur des banque forte des banques yoo xam ne banque locale ni ci koñ bi ay microfinance ak de financements yoo xam ne état bi ko def au niveau de la jeunesse ay financement au niveau des femmes ay financement yoo xam ne état bee koy def pour di jàppale les petites entreprise l'artisanat les PME le secteur industriel je veux dire bien Sénégal du dem mukk tant que développement boobu Ousmane Sonko wax taxawuñ ci mu industrialisation de notre pays le Sénégal prenons le cas du phosphate phosphate bi di ciy génn ëpp na cinquante et quelques produits donc cinquante produits yooyu buñ ci jëlee dix dix dix kepp di ko defaree Sénégal demi fini demi fini dama ne waxuma la liggéey waaye li fi dugg ci devise kenn xamul mu toll le fer lim mën a dugal kenn xamul lu mu toll malgré pendant des années ñu ngi tibb géej gi li fi nekk ci ay jën dama ne mën naa dugal ay devises la situation l'emplacement géographique surtout côté aviation kuy dem da aw dakaar di orientation muy réseau bu am solo boo xam ne hub la boo xam ne bu am kàttan la mën a indi ay devises boo ñu ci sous région bi gis nga ko foofu la suñu monnaie locale di circuler day am kàttan ba devise bi toq toq toq ñu di ko calculer di ko analyser di ko lijjanti di ko ci statistique ba mën a dil delluwaat del ci marché local bi ñun ñu Sénégalais ñu jëlaat xaalis bi delloo ko ci marché bi dawal. économie du dara Ousmane Sonko. xam-xam bi mu yor du xam-xamu tubaab Ousmane xelam nga jël delloo ko ci barce barce delloo ko ci bay dunde delloo ko ci pinc mi ba nga xam ne su baat bi jibee day mel ni bët set bi ñëpp war a jóg bay kenn ku ne da ngay am information bi kon Ousmane bu jógee taxaw ci loolu français ko France na ko du fi amee du fi amee idris Seck la nga war a def rek mooy dikk ànd ak Ousmane Sonko jàppale ko ngeen bokk jàppalante jàppale réew mi te lépp lu jëm si mbiri France ngeen jël ko teg ko nële. je connais bien la France je connais bien le français amul njariñ. amul njariñ dama ne depuis ba tubaab bi jëlee sëñ tubaab léegi wax leen ma garab gi fi tubaab bi jëmbat ci réew mi et que ce qui est très dangereux le français nag cept pas une défaite duma yi leen sëñ tubaab duma fayu fayu musta jóg ci seen xel mi dama ne buñ bokkul honnête Sénégal dina diig dama lii ñuy wax lépp mënoon naa ñàkk ci kaw ñun ñëpp ñu bokk diju yeewu seen doom yi ñu fees dellu ci seen kër yi seen kër yi lu ngi leen wax du dëgg parce que mënu leen ko xale yaa ngi tàmbali weex bi jaaw ci biir kër gi te mënuloo leen dara day xale rek waaye war naa la mën a teel a ture ndax ab kaye képp musoo ku ko mën a jëndal ndeyam ak jaay musóoram jëndal ko ci kaay bu mu kon surtout les jeunes bu représentez quatre vingt deux pour cent de cette population quatre vingt deux pour cent jigéen ñi nga xam ne ñoo leen jur kenn amu ci âge retraite nun daanaka suñu wàll jeex na surtout ñu nii ci àll bi nga xam ne Nous avons vécu les grandes démocraties. Nous avons eu la chance de travailler avec de très grandes compagnies, prestigieuses compagnies yu garaaw sax ba ya macha allah ku ci ñibbi sa retraite mën nga cee añ di ci reer ba say dëkkandoo xacc kon xëccoo Sénégal yëkkatiwuñu buñ ko bëggoon a xëccoo dañuy ñëw dëkk fa. mais na situation bi de mënuñoo toog moo tax ñu takk suñu bagaas topp àll bi daw loolu mooy situation bi nga xam ne moo fi ne liberté wóor pour terminer complot bi am na Idriss Seck ñemewul a tàllal loxoom waat ci yàlla ne waxut ak France ñoom ñépp ils sont contre Sonko ànduñu moom dañ koy xeex Sonko am na plan buñ ko lalal bii nag mooy dernier plan bi yónnee na procureur ak OFNAC ak EGE ay plainte joxleen ko boobu ne ñu ko téye ñi muñ ko génne wala ñu ubbi ko am na rumeur bu ne ci suuf bu ne assemblée nationale daa bëgg a forcer kees gi mais mi ngi deal ak professeur euh, le procureur pour ñu mën a seet ban situation la ko mën a jaar ba Ousmane Sonko du a campagne mais assemblée nationale lay toog ñu di ko poser des questions bidons ñu di ko poser des questions bidons kon dafa doon jaaru nu war a jóg nag en tant que sénégalais. en tant que révolutionnaire, en tant que patriote, libérer le Sénégal. mbay métti na suñ maam yi dañoo bay ba dee lépp luñ mës a ñoral tubaab bi watt na ko yóbbu nun ñii nga xam ne ñoo maase ak jamono avec les nouvelles technologie de l'information dama ne kenn waruñoo takk ab sareet nan doon ay gor gor doon gor nag mooy liñ fi fekkoon nga defar ko booy dem du yàqu ñi ñëw daañu ko fekk bu ñu dem defar ko ñeneen defar ko c'est ça gouverner kan boo jóg mën nañoo dem ten bàyyi wor naxe baaxul sëriñ si yéen ñëw jox naa sax bopp àdduna ak àllaaxira àdduna ak àllaaxira nga ko wax amul lenn loo mën a laal ci àdduna mu defal la ko amul lenn say njaboot a ngi taxawal mënuñoo liggéey sa njaboot ñu ci àll bi daw suba ngoon mënu ci dara sa njaboot coono bi nekk ñoom xam nañ ko yow ci sa bopp boo yore kër gi ëtt bi fees da ngay teggi parce que amoo njël suba lépp ñoom ñu xam ko di añ di reer di ndékki seen lenn manqué wul seeni doom duñ jàngi métier parce que ñun xale yi lañ yaakaar ñu di leen jox boo ñu ko nag war askan wi ànd ak ñooñu ko xam ne seen dara manqué wul dama tuye complice te la complicité devant jë lu garaaw a ngi noonu buñ àdduna jaral lii xaste yii nañ ko bàyyi lii ñuy def te du dëgg di ko wax nañ ko bàyyi lii nga xam ne askan wi la bokki jariñ lu metti metti nañ ko génne ci pénc mi ba kenn ne kenn bettuma loolu moo waral ñun buñ jotee information bi mu agsi ci man lu may def dama koy bàyyi gëstu ko xalaat ko seet ko delloo ko ci askan wi kan boo ko waxante dëgg xale yii sonn lañ war a dem université quatre mille et quelques bacheliers ñi ngi taxawalu Sénégal ba heure bi école ubbiwul Macky Sall dara manqué wul Marème Faye Sall dara manqué wul dama ne Macky Sall maa moom ñu nekkoon doon fii musuma faa dem ci moom ne ko jox ma cent franc te wóor na ko ne boo ko booleek jabar maa leen manoon fu mu fi jëlee milliard fudul da koo sàcc te kilifa yi ñuy mel ni ndox de kenn ku Sonko dinaa ñëw sa kër nga daw tey bu Sonko nekkee président seen màggal wala seen gàmmo wala seenu cant Sonko ca taabal yi ca kanam lañ koy teg boole ko yaa baax yaa man alxuraan Sonko taalibe la Sonko taalibe la am na lu ñu xam ci vie privée am duñ ko wax mais mu ne ma ci ndaw la da ngeen xam ne Sonko taalibe la jullit la bàyyi mokkal alxuraan mu mokkal alxuraan ay sër mokkal alxuraan mu ci askan woo xam ne dañoo gëm li ñuy def lépp di am njàng moo tax Sonko ba ci nasaraan classe bu mas dem mooy raw ba nim nim dee fu mu a dem mooy jiitu bu fii mu nekkit liggéeyam dafa wute ak ni gaa ñuy liggéeyee parce que lépp ci diine la koy teg réew yi bu amul diine waroo koo jiite. réew mi ko mënul alxuraan waroo koo jiite ko amul aperçu ci bible bi sax waroo koo laal parce que c'est un pays de cent pour cent de croyants donc quatre-vingt-seize musulmans te tey la càcc gi gën a garaaw tey la fenn yi gën a garaaw. tey la sàngara si gën a jar tey la mooy yàlla gi gën a jar ngénte doom yi amul jëkkër tey la gën a jar kenn ku nekk ñi moo xool sa bët sa doom wax ko parce que li war ci moom mënoo koo def combine bi am na bu kenn bettu ma idi li ma lay digal bu fekkee ne bëgg Sénégal bu fekkee ne réew mi baal France tout tranquillement France pomme janax ak muus la pomme janax ak la France a exécuté plus de vingt cinq présidents africains assassinés la France a organisé plus de cent dix coups d'État la France a organisé des conflits ay génocide yoo xam ne la ca dee kenn xamul nu mu toll il dit attention avec le blanc reviens à la maison reviens à la maison il dit toogal ak Ousmane Sonko c'est ton frère vous allez déterminer un projet pour redresser cette situation du Sénégal nga xam ne moo di ci àll bépp ñépp a ngi toog di déglu bu ngeen xoolee muur yi nii songandoo ren organisation bu def la ñun jublu ci muur yi xamante di ànd par le canal des radios sociaux par le canal de cette nouvelle technologie nous avons la chance de se communiquer communiqué fortement nga xam ne muud yëpp a yëngatoondoo ñëpp a jógandoo ñëpp a taxawandoo rien que pour l'indépendance du Sénégal idi bul xañ Modou yi loolu va rejoindre Sonko walla nga ne Sonko mon petit frère kaay sama kër tu peux l'inviter appelle-le il va venir ku modeste la ku cool la ku humble la woo ko ngeen toog waxtaan te nga mooy yooyu yàq lii dikk ëllëg nga am ay génération ay génération et des générations ñoo nar a torox complot bi am na Sonko daañu fexe assemblée nationale dugg ci ci affaire wu Mamour sàcc boobu wala le procureur boppam récupérer dossier bi pour affaiblir yow dootu mën a dem fenn fenn ba fa di wax ndax heure bu ne am nga débat boo defee assemblée nationale waxtu wu nekk procureur naa wax ak yow loolu lépp gëm